xam na boroomam moom Serigne Touba xam na boroomam am na boroomam raw nay moroomam kadesu Bamba day xëy di jàngal nit ba mu mokkal te du ko bindal ci yàlla Bamba ku Bamba jàngal nga mën a jàngal képp ku déggul siyaare Bamba ñëpp a ngi may yéew man Serigne Touba yow laa yéem lu bokk la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 ñu baax a yàgg ray tële Bamba ndax jiw Serigne mu ne fulaa ray mu ne fulaa ray te nga a xalaasi Bamba ku la fi daa ray bàyyi na laa ray ku la fexe ray ba na la Bamba mënuñu laa ray mënuñu laa ray yow may ma xaba Bamba man jiw maa ray te jiw maa ray damay fexe bay sa tooli Bamba bi yow Serigne Touba bi mu amoo maas na ñëpp def ni ñu màggal Serigne Touba bi mu amoo maas tey jii doom ëllëg maas kenn nga bàmbaam defar nga képp defar nga lépp defar nga fépp bokkoo ci sa loxo dem na sab coono way na sa pay gi ñëw na du jeeti bàmba saf nga rot na sa togg jot na te ma kañ la bàmba xar nga fépp dàq nga fépp wasal nga bamba kon ja xam na gabang ja xam na maa imba xam na ndimbal bamba lambar xam na ndimbal xam na mbaa fali xam na nim bamba ku naa kiri ki karambe saaki kable bi saaki ndax xam na bamba ndakaaru xam nañ wa mbake xam nañ waa doomi xam nañ dimbal nga bamba waa dëkk gi nañ waa jeex gi nañ waa bépp gi nañ sëñëw yi bamba te yàlla gis naa yeneen ba gis naa saaba ya gis nañ sa jëf ji bamba def nga lu nekk yow sëriñ Tuuba dañ nga lu nekk wax nga lu nekk ngir yàlla bamba daa nga mosum ñax ba ngay mosum ñax amoo lu dum ñax boobale bamba génn nga say kër bàyyi sa waa kër di saytu sab der yoo rekk bamba def nga ko ay at te tawatoo yit giñ naa ni yaa mat giñ naa ni yaa ab sang bamba dëkk gi soldaar di bind ak ay soldaar def nga bamba lu baax du baax ba jàll baax waaye bàyyi Sëriñ Saliou weesu baax baax a ngi yem fi xotti baax baaxal gaay xam na be lu baax du baax lu baax du baax lu baax du baax lu baax du baax ba jàll baax waaye bay Serigne Saliou weesu baax bay Serigne Saliou weesu baax baax ak yam fi xotti baax baaxal gaay xarnu bi ku weddi lii demal la gan Cheikh Issa mooy mbër moo mën a gan yaaram la wute naag sagaan ba maa ko ñàkk bi Serigne Saliou xam-xam ki mooy jooy am donga yee jooy am daax yooy jooy sëriñ Saliou dem na am xel ko jooy am daax yi ñooy jooy am donga yi ñooy jooy sëriñ Saliou dem na Cheikh Saliou woo Cheikh Saliou woo Cheikh Saliou woo Cheikh Saliou woo Cheikh Saliou woo du ma noppi di jooy yiw sëriñ Saliou woo yow sëriñ Saliou woo mënatuma jékki jooy ne duma jékki te nekku may jooy mu ne duma jékki te nekku may jooy nag may jooy Serigne Sall daf leen ni ñu màggal Serigne Sall woo bay Serigne Cheikh Sall bay Cheikh Moustapha mu ne duma jékki te nekku may jooy Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Serigne Saliou Mbacké àdduna yaa mën a jooy Serigne Saliou woo am xel ko mooy jooy am xay mooy jooy